ke doomu aadama nga war a taxaw nga dem taxaw xaar ko xaar ko mooy prémédité prémédité mhm. nga taxaw xaar ko ba mu ñëw tollook yow ngeen séq ko maanaam sandwich ko séq ko ku ne di tiire mais yàlla rek moo mën a rëccal doomu merci Dame Mbodj merci yàlla rek moo mën a alors Moustapha hmm. Moustapha gis nga situation ah, ah. alors fii euh, Dame Mbodj maa ngi koy déglu euh, sànq ba léegi dafa lu mu lu mu wax bi muy euh, daaneel daanaka euh, mu jër a taxaw maa ngi biram ñu ngi koy discuter waat bërki démb ba mhm. wari ne Sénégal euh, politique dañ ci toll foo xam ne la waa waxoon ne la politique est souvent le cimetière des amitiés loolu moo xew Sénégal c'est-à-dire que wax na dégg digganteem ak le ministre de l'intérieur mhm. gis nga fi ñu fi ñu mujj. Mhm. Ousmane Sonko ak le procureur général. Ibrahima Bakhoum. keroog yi Ousmane Sonko nettalee fi famille ak famille wu procureur ni ñu mel Sénégal yëpp dañ ne nii c'est pas possible. Mhm. de la même manière diggante maître Tall mi toogoon fii keroog. Mhm. ak euh, le l'actuel maire de Mbour. Mhm. donc Sénégal politique dafa dañ ci dañ ci te loolu du lu bees dañ ci toll foo xam ne tey jii euh, mbokkoo xaritoo politique mi ngi koy tas. réew mi léegi dafa nekk réew moo xam dañ ko diviser en deux camps. pour ou contre amul beneen taxawaay. si pour c'est bon si tu es contre c'est pas bon. amul beneen beneen beneen euh, nu nit war a taxawee. or Sénégal am nañ également beneen problème moo di ne euh, souvent da ngay dégg euh, bi Dame Mbodj di nettali récit bii nii. leer na ma ne bari na ci ay journalistes comme ñi gën a nekk ndaw ci ñun fii. Mhm. ñoo xam ne. dans leur tête dañ naan mais c'est pas possible Sénégal loolu mënu fi nekk. Hmm. c'est-à-dire que sénégalais euh, mënul jël fetal dem di tiire moroomu Sénégal moroomu moroomu sénégalais. Hmm. Euh, très souvent sooy déglu sax même sur les plateaux de télé ñuy wax ci la violence politique au Sénégal ak yooyu tu as l'impression ni Sénégal gii moom c'est impensable. Moustapha Diop man fay yëkkati yat dóor ko Aliou Sow ci wàllu politique rek. Hmm. or gis nga loolu euh, bi tey. mooy li gën a foo ci Sénégal. Mhm. li gën a foo ci Sénégal mooy yaakaar ne ñun politique duñ ci rayante c'est pas vrai c'est faux Dambodj wax na fii léegi que ni ci corniche boobu fa lañ rayee un vice-président du conseil constitutionnel du Sénégal. Mhm. Mhm. lan ci lan lañ ko rayee ci contexte politique. Euh, euh, foofu noonu muy wax ne sorewul kër euh, président de la République ñu ne mooy zone daanaka zone bi gën a sécurisée ci Sénégal et c'est vrai mais mais est-ce que da ngeen a a juste quelques semaines. am na journal bu bindu fii ne am na ay samba boo yu doon tiirante ay bal foofu noonu ba jàpp ban jàpp leen. Mhm. côté kër président de la république loolu yàggul. fii ci Sénégal ci ci ci politique gu Sénégal bii jërul ngay remonter année yu gën a sori. Mhm. mais 2011 nekk nañ fii di di marche di manifester fii ci place de l'obélisque am na ay doomu Sénégal yu bëri yu fa faatu hmm. am na policiers yoo xam ne ay doomi Sénégal yoo leen tiim dóor leen ay briques ñu faatu hmm. fii fii Colobane c'est en 2011 loolu yàggul hmm. Euh, boo remonté plus loin euh, euh, dans les années 90 quelque chose comme ça parti démocratique sénégalais AJPADS ñoom les Moustapha din mais meeting nañ fii meeting bi tas xeex bu metti am fa ñu faat fa ay policiers fii ci centenaire ci lan la woon lu fii ci politique la Euh, euh, du temps de Senghor euh, nu mu tudd maam Khady moo koy tudd xam naa ne dañ la ko net li ma mën ko fekkee. non man je me ñëpp a ngi ñëpp bo Sénégal boo fi tuddee stade Demba Diop. on ne fait jamais l'effort pour xam mais kan mooy Demba Diop. mais mais bi tey Demba Diop député la boo xam ne Mbour la dëkk. dem Thiès gouvernance di génn mais nit jam ko paaka mu faatu. Mmh. fan la amee du politique. moo doon jëkkëru Caroline moo jëkkëru Caroline Faye bi ñu tuddee stade Caroline Faye mmh. lan moo ko waral du politique. Mmh. Léopold Senghor mi tudd nii dem na grande mosquée bii bisu tabaski. ñu julli ba pare ñu defal ko tente mu war a toog di discours bi mu dugg bi muy dugg ci oto moom ak Abdou Diouf la benn waaye jël fetal nar koo rey fetal bi bañ a tàkk kooku dañ koo atte rey ko Moustapha Lo la tudd mais ci lan la amee loolu politique donc Sénégal il faut que ñu ñu ñu ñu ñu gëm ñun une bonne fois pour toutes que ni politique ñi ngi fiy faat ay doomi aadama 1963 mm-hmm. daam mii na la ko wax parce que certainement liir na ko décembre 1963 am na manifestation diggante Rufisque ak Dakar gendarme yi ak yu bëree bëri ñu faatu mm-hmm. politique que ñu ñu arrêté de penser que ni non li Dame Mbodj di wax ni c'est extraordinaire mun loolu mënul am Sénégal des Sénégalais ñi ngi rey ay yeneen i Sénégalais ci wàllu politique kese moo ko waral loolu mooy am ci réew beneen bi mooy dañu am defe naa Issa moo ko wax ne Dame pourquoi yow Aïcha ne ko est-ce que sentir woon mais on vit dans une ambiance mm-hmm. tellement délétère une mm-hmm. ambiance de peur boo xam ne man du ma mukk ñu naan ma nit ña ngi koy tiire ay balak yooyu <coughs> pourquoi je le dis mais Mame Birame doy na ci exemple comme de fois il reçoit des menaces de mort Aliou Sow wax na léegi ne il reçoit la même chose Pape Makhtar Diallo il reçoit la même chose Pape Ndiaye mi ñu doon tudd fii il reçu il a reçu des menaces de mort x fois. man mi la même chose Pape Sané la même chose Mame Birame euh, Pape Makhtar euh, fii ci euh, point E. mais bëccëgu ndara kaam 18h lañ leen fa agressé. Mhm. ñi leen agressé ci oto lañ dugg ñoom ñu identifié oto bi wax ko commissaire ba et la mujj ba léegi ba léegi amul donc il faut que vraiment dans ce ñu arrêté di étonné wu naan euh, pourquoi Dame Mbodj euh, pourquoi nanga ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous parce que ambiance bi ñuy dund moo ko waral maintenant lenn rek mooy ci solution mooy li daam wax bi muy daaneel mooy les forces de défense et de sécurité tey gis naa un intéressant communiqué de l'armée bu ñu waxee ne société civile bi ak euh, politique nañu éviter di leen mêler ci question politique yi mm-hmm. gis nga les forces de défense et de sécurité muy gendarmerie police armée ak beneen bu ñu ci mënti doon ñoom rek ak les magistrats ñoo mën a taxaw ci position boo xam ne Sénégal day am sécurité par force. absolument mooy ku fi agressé Aliou Sow ñu def ci kaso bi. ak foo mënti bokk nag. point ku fi euh, jël fetal jëmale ko ci dàmbooj ñu def ci kaso bi ak foo mënti bokk nag. suñ la tegee ci àttekat mu teg la daan yoo xam ne keneen du xalaat di ko def. bi